Bienvenue sur Salam Vision. مدعاة العدفان يا سيدي يا سيدي يا سيدي من لي بمثلك للفؤاد العالي يا سيدي يا سيدي يا سيدي سيدي جان وفايق لوي جمونو من نان جزاك ربك عن بني الأوتان وغل أمين ثم صلاة على النبي وآله من ربي في ربي العنان ما قال أحمد للتجان منتدا فإليك يا ابن محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وخدمه وسلم تسليما onze billah bismillah inna walillah boo bokk téléspectateurs yi nga xam ne yéen a baax ci seen télé bi nga xam ne mooy Salam Vision à travers YouTube bi ñi nga xamante ne tege de les wala seen télé yoo xam ne noonu leen tege saa su ne ngeen gën a xam ci nga xam ne mooy dafa sa jàmm Serigne Souleymane Diouf ñu fas yéene àndandoo moom ci jotaay balaa dara xew dañu koy dajal ñu nuyu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 ginnaaw bi sant yàlla julli si Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di di leen ziar bu baax di jox seen góomu xool di wax assalaamu aleykum wa rahmatullah képp ku ne bàyyi xel rek ñu ngi leen di di leen ziar di leen baalu xàq si weer bu tedd bi ñu jógee bi nga xam ne dëgg Ramadan dugg si korite di leen baal àq yàlla yàlla leen baal ñu àq yàlla yàlla booy jéggal si barke Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëñ Talla la moom laa lool wax dëgg yàlla dina baal àq bu baax macha allah ndax ginnaaw laa dégg lool ginnaaw laa gis ndeysaan mais yàlla yàlla def bi rek mm. ak a nekk rek ñu mm. wax asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh du ma def dara lu dul rek daal di dikkanteeg euh, olof di faral di wax Tungune moom mënu la teew ñuy nataal. Mhm. gannaaw Tungune ngi nii. Mhm. nataal bi moom Tungune koy defal ko. Mhm. Souleymane tey ñaar ba ñett laa bëggoon ñu waxtaanee. ñaar ba ñett. ñaar ba ñett yooyu. day doon li nga xamante bi ci njëkk mooy wàllu ngóor. ndax ay nit ñoo ma woo wax ma bi ñu ma wooyee wax ma ma jéeg jóg jéem. dem def ay pexe. Mhm. di fi gëstu. Mhm. ba jot. Mhm. ca la nga xamante ne loolu lañ ma waxoon. kon loolu xanaa leer na. léegi nag ma bëgg a xam. Souleymane coowal ngóora Souleymane secret ngóora Souleymane fan la jëmal nit ñi ci ngóora. alhamdulilah rabbil alamin Serigne Talla hmm. yaa may laaj loo xam ne tamit loolu moom yàlla du ñu dénk damay gis sax dénk. Mm-hmm. boole si ñu fasantoo ak ay mag yu baax yu fasantoo si ay dëkk yu bokkut. Mm-hmm. ñu dem gëstu ji ñëw toog fekk ko ba gëstu ko ba xam ko ba ràññee ko. Mm-hmm. ñuy xarab ko ay tur yàlla yoo xam ne ay àpp ak jëriñu si. mais nag wàllu ngóor moom seen képp ku si jëflantee bu ànd na dogal suñu borom. da nga koy waaye du du loo xam ne kay naam ah mi si wax. te loolu du génn alxuraan ci kàttanu yàlla da koy deewaale moom waaye maanaam maanaam def na ko see bu subaa bu leen. ci kàttanu yàlla wax boobu wéru ma ko man. non Sadio Souleymane dama bëgg wax bi mu leer. Hmm. damay gis gars yi jox la. Hmm. nga xam ne heure boo ko yittewoo. Hmm. dem jël ci def ca la nga cay def. barkeeloo ko. bu guddee wala ci suba nga mën a yegg sa bopp normal. yow da nga bëgg wax ni bii nga yor ni demeewul noonu yow. non non man bu ma yor bii de lenn dañ koy boole. lem lem si boppam. bu mm. efficace bu dëgg. Mm. mooy lem bi. boobu moom soo ko defee moom. Mm. du ma diire ñaari fan du ma diire ñetti fan du ma diire ñeenti fan moomu bisul yàlla yi. waaye moom bis boo ko naanee guddi gi nga naanee wala boo ko si ñaareelu guddi ba si boppam. Mm-hmm. dina yëg sa bopp ni yow si boppam naturellement la nga yoroon ab bii bokkut. te incha allahu rabbi vie à vie lay doon te biir bu dund. dina dem ba am 60 ans sax yore soxna su ndaw ah sax daa mel kii ne est-ce que ndax kàttan te loolu moom damaa dagg ay hectares dem eh, si ay dëkk yu wute. Mm-hmm. dem si ay borom yi xam-xam te yu ma ko def ñëpp. Mm-hmm. ay ponkale ay ponkal nan ay mag nan man ay mag laay toogal bagage bi mag laa yor. yor ma bagage bu mm-hmm. mag laa yor. loolu hmm. jox hmm. su ni kon daanaka dafa doon loo xamante ni fi du loo xamante ni da ngay jóg di diggante ak négocier maanaam loo gëstu la wala loo dem ñu jox la ko wala ko jox yaa ngi gisanteeg moom. man daal lii laa bëgg moom mu leer mu leer ci bopp. man hmm. ko. Hmm. ni jàngoon ko ba moo ko ba utiliser ko maanaam nemmeeku ko ba jàngal ko ba xam ko ba pare. soo hmm. ko àll. nga wax. maanaam damaa jàng ji. fa ma jàng ji woon. toog naa fi daanaka fukki fan àll àll teg nekk ma Dakar Ndiaye. damaa tëju. bi nga ko jàngee ba noppi da nga tëju. damaa tëju ba du ko wax lool. affaire yi ñu jàng ngóor pour defar ko jël sama temps may enquête kenn ñu ngi kenn benn client liggéey nga pare ah ba caabar ba pare ba xam wér na ma soog nit ñi ma ko jox ñëpp rek faj mais wér mais ñi ma ko jox ñëpp maa ngi sant yàlla moom naa si lu si bëri maanaam boo ci joxe woon diis tey ñaata ñaata ñoo ci ñëw ñu nii wax dëgg yàlla day mun naa xadam ni diis yi nii maanaam su misaal nga xam diis yi mu ko jox misaal. Mm-hmm. ah maanaam juróom-ñett yëpp ñoo ne ñu ne ma koy tey ku yóbbu. Mm-hmm. noonu. Mm-hmm. man leen dama leen wax mooy garanti kenn waa xam lii moom ku ko da ngay yëg ah na nga daan yëg te dégg say ab bii ku jigéen koo daan yàpp da nga daan respecté. Hmm. lii moom nga wax ne maanaam tey jii garab bi doonul traitement la booy jël. wala loolu teeral la ma lay jox lu ma lay jox noona pat boo ma lay jox wala mbuus ma lay jox soo ko defee dama la ko waxee si kàttan yàlla mbaax jël na leen fekk naa leen ci wàllu dañ koy deewaat. Souleymane benn yoon boobu noonu rek ngay jël. <laughs> ah déet sëñ bi na leer dama ko gars yi ñu bëgg lu leer. man daa am kaaraango lu lay jox sunguf moo lay jox bu ma koy def ba jox la ko utiliser que noonu laa joxe noonu chaque jour dégg naa heure bu jeexee baax amul app. moom bu boo ko naan ba mu jeex. boo ko naan mu jeex tamit bu dem fenn. saa yu sëñ bi li ngay wax. te sant yàlla mbaa xam fekkee ne suñu borom dogal da nga am rab mu ne xoolee da nga am rab rab moo téye ci ngóor dañuy dindi rab ba pare teg ca fële. Mhm. jox la gërëm ngóor bi. ndax bëri na ñoo xam ne ngóor bi ñu bëri rabu ndaw si moo la koy def wala yow si boppam ne am rab bu lay yàq te xam. waaye fekkee ndoxum siti la doom mos ndox. Mhm. moom garab bi moom dañ doon xam dafa jaay ndoxum siti <laughs> maanaam kon yamatul ci ngóor moom day faj leneen. day faj faj beneen maanaam juróom-ñaari jàngoro yu bokkul mu ngi fi kese lim lu la mais juróom-ñaari jàngoro yu bokkul mu ngi si moom mhm. fi yooyu yëpp mën na see mën na see mën na see génn ndax nañ nga boole am na benn tur eh, yàlla boo xam ni wax nga ko lañ wax. Mm-hmm. alal boo xam ne latif lañ koy wax te latif ku xam ku ne ñeewantal la yàlla comme ñeewantal lu la yërëm. Mm-hmm. ah kon yërëm ne mm-hmm. ah, boo xam ne dañ ne turu bi ne moo gën a réy turu yàlla moom lañ tëj ak biir. muy ban noonu. <laughs> ah dina bàyyi loolu. ah déet damay laaj déet. c' est que kenn du wax. ah, ah, ah nii. ak secret ak secret yoo xam ne turu yàlla génn ma ma faar xatul kiram te naa boole ay sunguf boole ko si quarante et un jours toog suma ndey quarante et un jours toog dëkk liggéey. maanaam garab gi fi mu toll nii quarante et un jours la koy liggéey. su ñu liggéey fi mu mën mujjee liggéey ñu nii nii suba la nag suba la jeex ak mais sëñ bi bu lim bi nga ciy defal est-ce que fi mu toll nii takku na wala fi mu toll lim bi. mu ah man daa xam naa ne moom lu ma wér ba wér li ma njëkk nii nii instant yii nii. Hmm. ah tirage bi moom mosuma tiré te incha allah balaa gëm naa ne fay fukki fan lay jeex wala boog balaa balaa balaa juróomi fan loolu moom gëm naa ko. te léegi deuxième rempart bi war a ñëw defaraat. deuxième bi deuxième bi gën a kii moom gën a pire bii ba may defee nii moom gën a bii. lu war a loolu. ah bokkuñu. ah da nga defar ñaari qualité. yaa ngi kër yi bokk. ok bii simple la boo xam ne ci góor rek dox beneen bi moom day dox mooy bii. dox ci wàllu moom moom si juróom-ñaari jàngoro bokkul la bii mhm. hmm. boobu dañ kaa tëjee fa tur yàlla. yàlla moo mën ñëpp. Mhm. mooy kun fayakun. loo ko loo koy ñaan mu may la. Mhm. ay ñun foo mën tuum dañoo di liggéey. fomante wuñ de lii liggéey loolu gëstu ji looy jàng bi bu lii doon nii mhm. loolooy jàng bi dem gëstu ji mhm. ñu toog te suñu toog di bagage xale mhm. bagage yi mag la li moom mën na la wax garanti man nañ dafa sàcc wax ma ne ma mag mi lay jox secret bi ba nga jóg génn gëstu ji ba dellu si waat dañu ne ma mi ngi dund te te te mu ne yàgg foofu yàgg fa ba mu sama biir kër xam nga ko ko ko ko bañ ma koy wax bañ ma ko waxee du tey bokk na ci tax fi mu ne ma yomala jàmm dañoo connecté ma wala téléphone ne la ndax ñëw nga ak ñëwoo waaw parce que ma dee te ñun moom gannaaw gëstu mooy suñu war a. ñu ngi gëstu su dee dëgg dëgg connecté gi la connecté wu ma <laughs> Ah, foofu mm-hmm. la jëm loolu dinañ demaat dinañ ci ñëwaat rek. waaw xam-xam fi ne bu ñuy toll loolu yor bu jaam yàlla ñi ñëw fi ñun la. moom daal moom li ñuy ñaan yàlla mooy képp ku ñëw. te dee war naa fekk fekk aajo. yàlla naa leen gis fekk war naa fekk fekk aajo yàlla bu ma gis mu néef. ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam xaw ma si bi naan xam ne sax mu affaire moo la wax ak muur yi ak muur yi incha allah yàlla baax na àdduna looy gis ñu ne. Hmm. sabab la ak wakkiirlu. wakkiirlu bi nag sabab la man yaa yëngal si bopp. Hmm. wakkiirlu bi na ngay na ngay witti yàlla. Hmm. ndax yàllaay fekk ku ne. dëgg la mais nag loolu moom sëñ daal wàllum ngóor a. kàttan. sëñ bi incha allah rabi naa kàttan moom daa doon la sa digg ndaw. loolu de leer na moom. ok <laughs> du yokk du ma yokk maa daa doon la sa digg ndaw. ok waaw. mooy léegi est-ce amul kàttan gi fi mu toll amul effet secondaire boo xamante ne fi mu dina ko def ci doomu aadama parce que nit ñi loolu mooy doon seen problème parce que da ngay ba mu am njëriñ lool mm-hmm. wax ma ne ma amul effet secondaire. Mm-hmm. waaye faaw tam nag ñu leeral ko ñi nga xam ne que garab bi amu ko mooy loo xam ne maanaam mën na ci lii tey boo lëgee mu lor la ci dee. déedéet loolu amu xalaat képp ku ko naan mm-hmm. te soxna bu fekkoon tey da ngaa taxaw lu wujj bu mu fay. Hmm. may xalaat mu dellusiwaat. ndax lan. Euh, maanaam la muy tàmbali fi yow du ko fàtte ci kanam noonu laay xalaat nag dégg nga wax jàpp. Hmm, hmm. yaa ngi dégg bu baax. ah bu baax. maanaam affaire ab doole bu mu am doole. ah tax na maanaam moom si boppam soo ko laajee. giir gi lay amee fukki fan wala giir gi lay am deux mille fan ah fi ne nii maanaam sa moytuwul dëgg dëgg dëgg benn jabar ci boppam arrangé wu. loolu mooy <laughs> saa yi bul tànn. jaaxaan bu may bu may bu may bu may defal nii yéen bu laaxaan bi du jaaxaan la àdduna àdduna mu muy dégg te yàlla muy dégg àdduna mu muy dégg. Mm-hmm. bu may defal nii di pare nii daa pare nii moytu ku ko naan ku ko naan benn jabar arrangé wu Souleymane nag jigéen ñëpp dinañ la mel ndax fi ne bëgguñu wujjee. ah man bu si wujjee woon ko nga toog. waaye loolu yëpp danañ xel ko nekk si digg ndaw dix-huit ans. Hmm. nga kii gone bi tuuti na. Hmm. dina ko delloo. dina am cent soixante ans. ah dinaa kii ndax mag la wala gone la ndax kàttan gi ko yàlla di dégg. macha allah loolu la tuuti yàlla moo ko mën. Hmm. yàlla nañ koy woo bu mu wuy si la loolu la yaa seetlu yàlla sa biir xol la de. da ngay dëkk moom sa biir mënu a ko mm-hmm. doo ab ijaaba. nawet mm-hmm. mm-hmm. bi yomb. sëriñ foofu la ñu wutantee ijaaba. ñaan mu nangu. na ñaan yàlla da ngay yàlla lii laa bëgg kat seen seen taal léegi kat mën na la si bëgg mooy kat taal bi kat naa bëgg mu am kàttan wala boog naa bëgg mu ci barke yonent yàlla Muhammad na tawakkal lu lu bëri na na na toog nag jaayante ka ak yàlla guddi googa. Hmm. trois heures jëm jëm cinq heures. Hmm. foofu la mbir bi ne. jaamu kat yàlla dëgg la tudd sa dégg naa ñu tey ku ko waxaat macha allah rabbi jërëjëf Serigne ci leeral bu am solo boobu waaye tam ci wax dëgg yàlla pas-pas bi nga xamante ni wax dëgg yàlla ànd ak moom na ci tamit sa benn jotaay ci YouTube bi dégg nga ni guddi yu ñu toll rab bu mën a jóg bu jógee bu yegsee fekk ma fi te bu ma fi fekkee ma faagaagal ko ma gis ci nga wane ci ay image yoo xam ne wax ci ne li ko tàmbalee bis altine talaata àllarba alxames àjjuma samedi ba dimanche bés bu ne maanaam xeetu maanaam gàllaaj boo xamante ni pour taxawu rab kese la rab yi jóg ci bés yi bés bu ne mhm. man bi ma ko dégloo mu doy waar lool ma ne nag man bokk na ci xaw ma woon ne ndakate kon bés bu ne dafa ay xeetu rab jóg parce que li tax ñu wutal ko euh, altine talaata àllarba alxames kon mooy bis ñu daf xeetu rab yu jóg xeetu benn bu ci ne nga ni la koy téye la koy tënk teg ko ci bërëb moom nga adat ci biir xaatim googu teg ko di xaar man affaire boobu niroo ay léeboon ak léppoon. sëriñ Talla mais maanaam juróom-ñaari fan yi maanaam laa dégg ni maanaam maa ngi xaatim boo xam ne maanaam boo képp ku ñëw tey jii fi mu ñëw dimanche. Mm-hmm. dimanche soo ñëwee am naa téere bu ma lay jox boo xam loolu dimanche boobu fu mu dina la ba pare. Mhm. téere boobu am na da lay bëri mu àndal. Mhm. soo ko takkee si digg rab dootu la duggati. <laughs> kàtt bi yàlla la loolu loolu moom ku jox surtout mbaay ñett la. Mhm. keneen ku ma ko joxaat ah. ña ñaasaan gi ok te dem sama kër la fanaan. maanaam ñaari benn laa jox secret yooyu ñoo la jox. yu wér. ok man mi gëstu. Mhm. doon si la doon naa dara sama kër maam. Mhm. doon naa dara sama baay. Mhm. ndax di sant yàlla ñoom suñu wóor ñoom tey jii du baax. mais yàlla dimbali nañu ñun boo bàyyiwul suñu bopp si wàllu gëstu dañu gëstu. ba léegi nii nii nii amaguñ xam-xam dañu gëstu ba léegi. waaw ah, gannaaw xam-xam moom xaw ma bokk ci moom. waaw ah, kay léegi nii ba léegi nii waxee amaguñ xam-xam.

waaw kenn ku ne am na ngay àndal am na ñoo ni ànd sayaatiin hmm. am na ñoo ni ànd dina ànd ay rab yu bon hmm. yoo xam ne ni yow hmm. loolu bëri na si ay sëriñ sëriñ doo bi muy may wax dina xam na may wax maanaam loolu mën ci ñàkk sëriñ mooy am fu mu toogee nit du ko si baati nit du ko laal si wàllu rab rab bu ñëw bu la jàkkaarloo yow ngay daw ndax xamuñu tax. Hmm. loolu yaa ngi jëlee te gëm muy leer. ok illahi turu yàlla dëgg moo la koy jox zikru illahi. Hmm. moo la koy jox dëgg. ok wér. Hmm. moo la koy jox. mais wér ba ngay taxawee parce que say naram daa toog sa ginnaaw ay dégg ma nga damay wut tur yàlla. amul fenn <laughs> waaw. bëri na ci gars yi de. waaw moom la moo tax man la maanaam wax moom. Mhm. soo bëggee di jàkkaarloo gars yi di leen gis fu mu toll ni gis leen. Mhm. yooyu yaa am ijaaba mooy bo booyasi mooy moytu bàkkaar gole day jaamu yàlla ba ko bii dee. Mhm. ndax yàlla soxlawul ne nag nga am 100 ans wala am am 100 ans. nga ne man maa daanaka daal jaamu yàlla baa dee ba ñëw. Hmm. jaamu yàlla seen digg ndaw la ko yàlla soxlaa. Hmm. loolu moom. moo tax ñun nag donte yàlla sunu borom dogal nañu ay gone la. Hmm. mais dañuy gëstu dañuy jàng instant yi ba léegi day wax yow nii. damay jàng mokkalagum. mooy ku ñu la fa caabi. alhamdulilah waaw macha allah. mu si boobu tam dafa bokk ci euh, mag ñi jox wala. loolu moom. dama kaa doonal si benn côté mais tamit damaa dem gëstuwaat dama yeneen anam yoo xam ne maanaam boobu tey jii ku ñëw tey jii soo daal woon tey hmm. rab bi dinaa xam nu mu tudd dinaa xam ñaata at la am hmm. dinaa xam fu mu la toppee fekkee hmm. te ko yónni tamit daa topp si nit ko def na am na si benn boo xam ne am na si bind ko maa jënd rab ba kakare si boppam mu xëy si ba attaqué ma faat ma faat rab bi te kooku ba léegi ne kooku si boppam instant yi nii ñoom ne sama kër maa ngi ñaan fi nii nga defoon loolu liggéey boobu. état mhm. yi bu dee tool ñu maa ngi koy maa ngi koy ñaanal mais loolu mbir suñu borom bi la. Mhm. mbir suñu borom bi la moo tax yàlla bàyyiwul dëgg ak ko ak dëgg ak ko ànd ak ah. bakkar ba naa si bàyyi si dara bay tamit bàyyi laa jël pare dafa la dafa daal di daal di daal di ko daal li mu takkee. Mhm. jàng téere yàlla bi mais nga guddal nga yëngu lu mu takkee na nga ragal yàlla. waaye liggéey bu am doole ma jaaxal. barkal amati solo Souleymane. wax nga ko léegi rab moom li mu mën a nii dafa bëri. li mu a yàqal doomu aadama dafa bëri. mais jigéen ñi nga xam ne tey ñu ngi nekk ci ay néegu sëy Souleymane di daj di daj lu métti. ci amuñu doom seen goro yi seen yaay yu jëkkër yi di leen ko wax seen seen njëkk yi di leen ko wax. maanaam nga xam ne dafa doon dafay dem ba dafa doon benn baat benn woy woo xamante ni gaaruwaale boo xamante ni fu ñu la hmm. robee def yàlla te hmm. bëggee ma defal la ko. dégg te bëggee ma nekk ko nekk ko. nekk. nga ko. soo ràññee da ngay def. <laughs> dégg nga ma dama laa bëgg dégg. maa maa si yàlla fekk la boo xam ne su far far te meew na koy boole. Hmm. soo ko naanee te kàttanu yàlla mbaax na def ko mu la ko waxee. Hmm. bu ànd ak dogalu yàlla balaa weer comme ça boo ko tàmbalee le prix yéen. baa weer bee dee te juróom ñu war a ñu defal sa xaalis boobu moom garanti la. waaye ngay wax ni garanti la. li ngeen wax rek di caaxaan di caaxaan de dafa am fu ma ko teg te génn ma alquran ba léegi nii li may wax yow nii alquran bi ma génn donte la suñ ko fi nii. mais base bi alquran la. alquran la man alquran laa gëm gëmmu ay féticheur ak i ak i xam-xam bu na nag gëmm man wax dëgg na. Mm-hmm. kenn ku ne ko xeex sa xam-xam ndax yàlla yàlla mooy maye. Mm-hmm. waaye ngir nit la daal soo bëggee. Mm-hmm. jox ko Seydina Mohamed. Seydina Mohamed dig day wallaahi kitaab ku bëgg nga dëgg sallallahu ala Muhammad soo koy soo koy def te te saxoo ko dëgg. zikrullahi saxoo ko dëgg. salaatu salaam saxoo ko dëgg sax daal bañ naa baax dig day dëgg laay daal di laa woo loo ñaan yàlla nangu mu nekk lu ma fi nekk di ay caaxaana yii di nekk ci ma fi de nekk ma te mosuma see nekk dafa si nekk mosuma see nekk. fii de niveau bee kawe nii quoi. man lu ko neex. Ah. mais en tout cas man amu ma nu bu kawe aw kawe maa aqiqa lay dëgg dëgg laay waxee. Mhm. ndax caaxaan yi ñoo bëri. dëgg nit ñi ñoo war a bàyyi caaxaan. Mhm. nii naxaat ñoo bëri. Mhm. te nit tam nanguñu leen di nax. waaw kay loo moo tax nit ñi ñoo war a yeewu. ñu ngi war a yeewu te xam ne maanaam jamono bi di jamono nii te tey jii fi nii état yi pour nga mhm. xam ne mu man nekk na fi du waxat ay nangam a nangam dafa am ñun gën a toogaale yu fi mag lan toogaale. Mhm. toog moo man kot. Mhm. ah. <laughs> léegi daal man lu ma naqari sa àddina sax mooy. maanaam ba léegi sëriñ tànk solo yore xaptaan boo rëy. Mhm. kenn la respecté dinaa kii di sëriñ te fekk ñoom mën naa tas dëkk. foofu laa bëggoon a jëm si Souleymane gars yi dañ koy wax mu sol blouson wala mu sol panneau service te léegi fii te mu demee noonu tam loolu. di di di affaire bi si kër affaire bi jàng la. Ah, gëstu. wallaahi affaire bi caaxaan. affaire bi solo de. korob la man na ma baax sax. kon nag maa ngi benn femme ñëw na sama kër nii. Mhm. am ko ko boole man nga ñëw kër gi fekk ma maa ngi toog sax boobu moom maa ngi toog sama benn jiw producteur bi boobu maa ngi toog du wér. Mhm. mu tax ba si mu am na sëñ bi ma ko bàyyi nii. ñoo yaa sëñ mu waaw. mu mu tax ba sama yére bi nga ne man dana may yére. jour boobu rek mu mos a mu ibbi kabataa man gis na yére yi man de man ko yére yi amuñ njëriñ dañ koy dee wacc na mu am xam-xam moo fi ne. Mhm. na nga toogal fekkee daa ñëw pour pour seetlu toogal ma la. su mhm. ma la gis la dama la seet ku la gis. mais jour ah, a a loolu dama kaa euh, euh, gis ci biir daara ji. ma gis lu mat ñeenti njàkk wala juróom-benn bii ab kël ñaari kël yoo xam ne bii mi ngi def xaajar yu weex tàll bii mi ngi def xaajar yu xonq mm-hmm. ma bëggoon xam njëriñu kël yooyu ak lan mooy seen i wàll bi yeneen ñaari kël yi njàkk yi ñu ngi def ay ndox mm-hmm. njàkk uuf leen mm-hmm. ma bëggoon xam ñoom tamit nu mu demee noonu waa njàkk yi njàkk yi yenn benn ko def benn saa yaa def sangat

bu doon vingt et une heures nga sax day bëgg laa mën fóotu am ak yow ndax nam bu lay am boobu la bëggee bi soogaa juddu la fekk ne yow mën nga si wàllu xaat ànd boo xam si si ab benn kër bu lay xaatim def doo ko teg xoojee soo ko joxee mu ko ah fu mu mën a toog tàngoo ko jugal du ko yàq yooyu moo tax maanaam yàq yooyu ci boppam yenn yàq yi nag moom wéccet yi moom xooloo foog moom seen wàllu baax maam la fu laa ko fekk wala wéccet yi nag fee fekk wéccet yooyu foo ko fekk gënoon naa ëpp loolu sax waaye nag maa xam ne maa xam yu bëri maa xam ne ah ëpp na ko. est-ce que loolu moom sama waax wàllu maam la maa fa wécc. ndax baax maam dafay baax. xëy na daal ndax yëf mag la. Mm-hmm. mag nag su wécc. mag ñii. yaa ci tuuna ngay. la yàlla la. lépp ma koy mag. la lay sos. la mm-hmm. yor la dëgg. da seetlu seen tubaab suñu seetlu seen tubaab luy seet soxla yi sañ. waaw faraay. taalibu seex bi wax na nag. barkaala sëñ bi nga ni gars yi nañ seeti. Sëriñ Tuubaa. lu mu la wan yow. dafa laa yow. déet yow lu mu la wan. diine man man damay gëstu maa ngi si ndiine ah maa ngi si lu ne. daa man man sëñ bi maa ngi jàng biir téere boo xam ne soo ko jàngee xaalis doo ko manqué la. xaalis doo boobu mooy ban. non waaye moom. dégg naa kii baaxee xam nga xam nga émission bi la. waaye moom daal xam naa lu lu wér la. ah hmm. émission benn secret boo xam ne si kàttanu yàlla képp ku koy doxal. Hmm. dëgg si. Hmm. incha allah du la nag. suñu borom kër yéen loolu la. déggoo la de si yàlla laa wax de. maanaam ngoone jot yàlla suñu borom ba balaa xëy na ne nangam dépense générale dina am loo dépense suba dina am loo dépense tey. jox ñu secret bi boole secret kàddu yu mujj ñu yàq yëkkati jotaay bi. waaw lu may joxe mooy yéen mbokku jullit yi damaa bëgg kenn ku ne da julli ñaari rakkaa hmm. ñaari rakkaa rakkaa bu ne de àndal soixante-dix aram na sax dinaa fatiha hmm. beneen rakkaa ba seet yaa ngi li ilaay si xoy seen soixante-dix dana fatiha ginnaaw faatiha ah. boo paree nag dëgg soo paree soo paree nay jël sa kurus na na na na wérd ah soo ko mënee wérd junni nag moo gën fekk mën a wérd junni nag na wérd ñetti téeméer hmm. na tëjee ko salaatu ala nabi wala salaatu boo mën hmm. ah na liggéey ko jox ko addiya yeneen bi. na ñaan ko yàlla incha allah rabi naa soo xëy suba balaa une semaine yàlla dana bëgg xewal boo xam ne dëgg lii dinaa ko sax ba amal dal ndax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam. lii daal maa leen koy ngir ba saxal. billaahi ladi laa ilaaha illaa huwa dina xam ne njëriñ dong amee alquraan karim. damay wax chaque jour ne ñëpp dimbal alquraan ne ñëpp seeti alquraan te mu nga mooy jàng. aywa ndaw yi jàng la mm-hmm. nga am faiblesse ndaw. ku jàng yaa sa pet. Mm-hmm. am na ànd gi da nga dem gëstu. sëriñ nag nga wax ni dafa am waaye këriñ dafa am. ñun nag ay taalibe la du ñu sëriñ. Mm-hmm. ñu ne am na suñu jokk. te suñu jokk la ñu ngi sant yàlla suñu jub dana ñuy teg. kon nag lu may dénk jullit li ko dénk mboolem jullit ah ak ku ñuy ñëpp. ñu leen koy dégg danañ jàng te respecté seeni waajur. Mm-hmm. ay waay respecté seen waajur su leen respecté nag incha allah rabbi naa sëriñ bi leen ñaanal tamit wallaahi day daal ndax përi yem gàllaaj mooy waajur kon nag fonk leen waajur yi déggal waajur yi loolu it amit dafa leen waajur yi loolu moom maa ngi ciy dénk ngir bàkk Seydina Muhammad barkab alquran karim wa axiri daxwaana alhamdulillahi rabbil alamin seen mbokkum taal yooyu woon Sëriñ Souleymane Diouf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala Bienvenue sur Salam Vision.